asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw leen nuyoo toujours di am contentement ak mbégte janoog yéen fas yéene la suñu làmb laataa na damay nuyu comme toujours ni ma maa ngi lay fay bu baax a baax wante ñu ngi nuyu suñu mbokk yépp yi ñuy topp ci Leewtoo TV heure bu ñu jàkkaarloog ñoom dañuy am mbégte ak contentement di leen euh, safo di leen faale wante maa ngi nuyu bu baax a baax waa Jurbel sama dëkk rawatina kër gu mag ga ma dëkk jolof jolof bi nuyu naa la waalo jaajëf Ndeye Mbacke maa lay fay di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloog yéen pour euh, indi leen li gën a ci yenn kaay yi. ci loolu lay jàll mardi 26 janvier 2021 journal suñu lamb xëy ci xëtam bu njëkk bind rëg-rëg guy gi bagarre technique staff euh, Ngagne Diagne décortique leur déco Ngagne Diagne décortique le choc des gladiateurs. jërëjëf Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la ko suñu papa Ngagne Diagne moom mee nga xam ne moo nekk fële ca i rajo ak i TV noonu la xëyee sekk waxtaan bu yaatoo yaatu ak euh, waa suñu làmb ñëw na faram-fàcceel ñu ñetti point ci euh, làmb jooju nga xamante ne moo nar a dox ci diggante Reug Reug ak guy gi incha allah ñëw na ci bagaar ñëw na ci technique wante tamit ñëw na ci force. dëgg la mbay ni nga ko waxee loolu la Ngagne Diagne euh, journal bi xëy dalal ko mu nee ne Ngagne Diagne décortique le choc des gladiateurs noonu la ko journal bi waxee wax na ci wàllum bagarre technique staff force ak mystique wàllu bagarre nee ne guy gi moom du xeexkat guy gi laaw la euh, gën a mën ci biir làmb ji nee ne Reug Reug itam du xeexkat waaye MMA bi mu def war na ko euh, tax mu gën a bénéfice ci wàllu xeex moo tax euh, combat yi di ñëw ñi muy daje euh, nar na ñoo am problème wàllu technique nee ne guy gi moom fooram moom mooy mu jàpp la boo jàppee boo xoolee ba mu jàpp sa ñaari bu jàll jëlee ñaari loxoom jàpp ko sa ngemb am na problème nee na Reug moom euh, il a une panoplie de technique noonu la ko waxee nee na Reug moom kenn du ko wax ci wàllum technique parce que lépp la ci xam wàllum staff nee na euh, guy gi dafa perte Mor Fadam loolu nee na dana ko indil problème yu bëri euh, ce sera difficile mu am keneen ku ko remplacer nee na moom wàllum staff il est bien encadré ndax am na staff ci wàllu MMA bi am na staff ci wàllu lutte traditionnelle mais am na benn staff bu koy suivre si wàllu lutte avec frappe bi. force nee na guy gi moom euh, n'a jamais manqué de force nee na guy gi mësul manqué force naturellement dafa am force waaye nag nee combat bii du jëm war na ci liggéey bu baax ndax euh, mbër mu am doole lay dajal contre Reug Reug Reug Reug moom nee ne c'est une force de la nature moom nee ne dafa entraînement yi da koy respecté ak bëre simple bi mu doon def moo tax Reug moom force daf ko am naturellement wàllu mystique nee na guy gi ne négligera rien du tout du négliger dara ci combat bi nee ne guy gi taalibe la woon euh, doomu daara la moo tax euh, ku xam te respecté wàllu mystique la nee ne Reug Reug moom Euh, doomu lébu la waaye dafa màggee ci ay séeréer looloo tax nee ne xam na mystique gu lébu xam na mystique gu séeréer ñaar yëpp la dajale moo tax ku foor ci mystique la Mbaye Babacar commandant Thion ancien responsable sécurité sécurité CNG nee na le huis partiel est possible lu mën a nekk. Euh, waaw commandant Thion ñëw ak journal bi sekk ak journal bi waxtaan bu yaatu commandant Thion mi nga xamante ne bii moo yoroon lépp lu jëm ci wàllu kaaraange ak sécurité ci euh, CNG nee na euh, huis bu ñu ko organisé teg ko ci yoon lu mën a nekk la wante ba léegi nee làmb ji nga xamante ne bii suñu aada suñu cosaan la ñoo ko moomal suñu bopp jéggaane wuñu ko fenn kenn waru koo bàyyi muy suux ñépp ci war a jàpp. dëgg la Mbaye ni nga ko waxee noonu la commandant Thioune moom moo nekkoon ancien responsable sécurité CNG journal bi dalal na ko mais bu fa ba mu ko dalalee nag ay précision la apporté nee na moom moo nekkoon doon gérer sécurité CNG bu nekk buy Alioune doon gérer mais maintenant instant bi ne comme que Bira Sène moo fa nekk waxagul ko dara mais mi ngi leen di déglu après loolu tamit wax na ci ouverture lu tax euh, ouverture saison bi yéex ba léegi nee na bokk na ci gestion fans club yi bokk na li tax ba léegi nii saison bi mënul démarrer comme ni nga ko waxee wax na également ci wàllu huis clos bi nee na huis clos partiel lu possible la ci làmb ji mais pour cela nee na il faut que ñu limiter euh, supporters yi topp mbër yi il faut que ñu distancer euh, supporters yi si biir stade bi waaye itam il faut que ñu respecter mesures barrières yi ne Mbacké Pape Demba Kane président MMA au Sénégal nee na gis na Reug Reug dem fu sore ci nga xam mooy MMA au niveau mondial. moom mi jiite wàllu MMA fii ci Sénégal yëkkati na kàddoom nee na euh, fa mu ci euh, MMA ci niveau mondial bi maanaam ci wàllu àdduna bi nee na gis na ne ku ci mën a sori na ndax li ko waral mooy am na expérience bi te it bëgg na li muy def te it mu ngi wane lu am solo. dëgg la mbay ni ñu ko waxee noonu la Pape Demba moom mooy président MMA Sénégal benn association association association la. moom nag euh, bu ñu ko dalalee daf ne euh, combat Reug Reug bii passé contre Ngalani amu ci woon tiitaange bu baax ndax nee na ba mu gisee palmarèsu Ngalani rek xelam dafa daloon ndax nee na Ngalani am na neuf euh, combats. cinq défaites la ci am quatre victoires nee na ba mu gisee loolu daal la xam ne ni kii daal waru sonal Reug Reug mais ni mu ko waxee noonu la demee finalement mais wax na également nee na euh, Reug Reug na confiance ci moom bu baax a baax a baax te Reug Reug nee na mën na dem fu sori ci MMA mondial bi. kay jooju nopp te noppeegul mooy Tafa Boy Bambara muy jooy ki nga xamante ni mooy ba génn àdduna nee na tur bi mu am ci làmb kii di naan mooy boobu Boy Bambara moo ko may fu ñu ko dégg ci làmb rek. booy bambara moo tax bay Babacar. mu mel ni Tafa booy bambara mu ngi jooy njaati géem bi nga xamante ni bii moo ko dalal ci wàllu làmb moo tax ñëpp ràññee ko ci wàllu làmb fu mu yegsi ci wàllu làmb tey gannaaw suñu borom. Euh, suñu papa booy bambara moom boo ko waral ba tax na moom nee na du ko mës a fàtte benn yoon ci wàllu làmb suñu papa booy bambara ñu ko ñaanal bu baax suñu borom yërëm ko te jéggal ko waxee noonu la dafa booy bambara gis ngeen ko ci Leewtoo TV jooyu métti yi mu fa jooy hmm. ñu demoon dégg ko mu wax ci moom ak diggante ak paa bi mais tey journal bi daf ko dalal ne ne li mu ci njëkk wax mooy que ne fi ko xibaar bi fekk nee na dafa liggéey woon ay 17 heures lañ ko woo informé ko ne ko paa bi décédé na mu nekk nouvelle bu triste ci moom nee na nag aussi tey bu nga xamee ci làmb nee na grâce à paa bi mi ngi koy delloo njukkal nee na paa bi ku baaxoon la ku bëggoon njaboot la ku bëggoon ay dëkkandoo itam la. dëgg la Assane. su ko ñëw mooy Petit Niang Petit Niang école de lutte Mansour Faye mu ne le cadeau rêvé réussir dans la fan série de école de lutte Mansour Mbaye moom ñëw na ci journal bi nee na moom li muy rêvé mooy nekk roi des arènes. li muy rêvé mooy ñëpp dégg ko ci wàllu làmb loolu la loolu loolu mooy bëgg-bëggam ci wàllu làmb dëgg la Mansour ni nga ko waxee noonu la Petit Niang mi nekk école de lutte Mansour Mbaye moom nag Leewtoo ci rubrique euh, Leewtoo bu làmb lañ ko dalal li mu fa xamle mooy cadeau bi mu rêvé moom mooy mu nekk roi des arènes dominer làmb ji dégg wiiw ci biir làmb ji waaye wax na fa également li gën a ragal ci àdduna li mu gën a ragal moom mooy trahir personne moo naam moo naam maanaam mu nekk wor warkat loolu daal nee na lu gën a ragal la wax na fi itam plat bi mën a cuisiner nee na daal yaasa moom fu mu ko fekk non da koy dóor mu daal man ni yaasa rek laa moo dañ jéewob li dëf lekki euh, jara de Mbaye Tine combat bi nga xam ne pa jëy production moo ko taxawal mu mel ni aaya ba daanu na woy wa daanu na diggante Jara ak Mbaye Tine 2 mi ngi noonu euh, combat ba taxaw na amateur yi kon mën nañ koo xaar ki ko taxawal moom mooy Dieye Mamadou Dieye Dieye production ñoom ñaar li ñuy xaar mooy arène bi ubbi rek ñu jàkkaarloo daal di jëflante. dëgg la Mbaye ni nga ko waxee noonu la Jared mu nekk euh, écurie euh, Ramdan Mbaye Tine de nekk écurie Mor Fadam combat bi taxaw na Mamadou Dieye seen moo ko tëgg su suñu làmb rek nee na ñaari adversaires yi ñoo ñu dul tricher leen ci làmb ñuy dem ba jeex leen ci làmb léegi seen combat bi le jour ji amateur yi dina xam ne ñaari ga guerrier dëgg ñoom ñoo jëflante Mbaye. ba tey suñu làmb le roi des arènes moo dem fekk nga xam te ne nii mooy Aziz Ndiaye ak Balla Gaye ki nga xamante ne bii moo gàddu couronne bi ci làmb ji mooy buuru làmb ji kooku mooy Modou Lo xale bi dëkk fële ca Parcelles Assainies moom moo seeti woon Aziz Ndiaye wante ba mu fa demee fekk na fa ki nga xamante ne bii moom mooy Balla Gaye da doomu ndeyam ñoom ñaar ñu saafantoo loolu mooy wane que làmb euh, sport la sport ba nga xamante ne bii day boole day dajale ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Modou Lo ak euh, Balla Gaye da dajal na fële ca kër Aziz Ndiaye Assane. dëgg la mbay ni nga ko waxee noonu la lamb ji loolu day wane ne lamb ji buñ dajee ci terrain bi ay adversaire lan mais buñ génnee ñun ñëpp ay mbokk lan moo loolu benn visite surprise surprise la jagleel Aziz Ndiaye ginnaaw bi Aziz Ndiaye jógee Màkka ci bi Modou Lo dem këram seeti ko ba mu fa demee nag mu fekk fa Balla mu ba nga ko fekkee félicité na Balla Gaye ñoom ñaar saafonte nan mu nekkoon image yu rafet loo xam ne nii day wane ne sport day boole waaye du xajale day boole waaye du xaajale kay ray boppam nag ngir am ndam ci kaw xam mooy Abdou de mooy Gris 2 Gris 2 s'entraîne dur loolu suñu làmb xëy bind Gris 2 ñu gis ko muy nekk ci entraînement yu méttee métti gannaaw ba ko rëg-rëg daanee mu nekkoon bu métti ci moom combat bu ko métti tamit euh, ñu gis ko mu nekk ci entraînement yu métti mu mel ni xam na lu nekk ci kanamam mu ngi koy waajal bu baax a baax te ndam rek la ci bëgg dëgg la Gris 2 bi ko rëg-rëg daanee ñëpp dañ ko doon euh, dañ ko doon sànni xeer waaye ku gis dernière image yi ci dernière conférence de presse yi mbër yi defoon. di nga xam ne Gris 2 mi changé na bu baax a baax a baax noonu la ko journal bi waxee Gris 2 s'entraîne dur waaye nag am na njàqare ci ouverture euh, saison bi ndax nee na ba léegi état bi waxul dara te loolu tiitloo na ko dara tu tiitloo na ko trop a trop léegi nag moom war na dajeek Abdou Diouf looloo tax mu nekk ci diini c'est la grosse di entraîner très durement pour que après regret mu mën a signer beneen victoire. bu ñu jógee foofu dañuy dem ci ki nga record record mu ñëw Abdou Badji le perfor le performance de Reug Reug repose sur cinq pliés ñëw na ci yi lu moom mi nga xamante ne bii moo nekkoon ancien directeur directeur technique national ci wàllu làmb ji. ñëw na ak waxtaan bu yaatu journal bii di record moom li mu xam ne mooy performance bi Reug def maanaam ndam li nga xamante ne bii Reug am na ko moom mi ngi ko teg ci juróomi ponk la ko teg Assane. ni nga ko waxee noonu la Mbaye Abdou Badji moo xëy Euh, record dalal ko li mu fa wax mooy euh, les performances de Reug Reug reposent sur cinq piliers maanaam performance yi Reug Reug yi def ci cinq piliers la wu. indi na ci nam négation sa rigueur à l' entraînement nee na Reug mbër moo xam ne nii du fooyee benn yoon entraînement la da ciy dem ba jeex waaye wax na également son courage nee na Reug mbër moo xam ne nii dafa ñeme trop amul benn adversaire boo xam ne nii day jàkkaarloo moom di tiit wax na également sa connaissance de la lutte nee mbër moo xam ne nii dafa xam lamb avant mu ci dugg moo tax. tey fi mu agsi mu agsi fii wax na fa également sa son envie de perfection nee na mbër moo xam ne nii lim manqué da koy jëli boo xam ne nii bu entraîné ba pare day xool loo xam ne nii mënu ko mu jéem a jëli ko looloo tax daal réussit bi rëg-rëg am ko noonu la ko waxee Ndeye Mbacké noonu bu baax ah, a fas ci bopp xibaar xanaa jaajëfal xanaa jaajëfal bu baax a baax a baax suñu mbokk internet yu ñuy topp bu baax wante maa ngi jaajëfal bu baax waa groupe whatsapp lambi bawol waa kàngami lamb fële ca njaareem fàttewuma leen benn yoon ndax ñoom saa su ne dañuy topp Leewtoo jàmm ak salaam ci yéen jaajëf waalo waalo bi. dëgg la Ndeye du ma dem tey nuyuwuma waa Linguère comme d'habitude waaye tey dama ciy bokk dama ciy teg sama ñaari xaritu enfance su ma nuyoo waa Linguère dañuy kaas ne dama leen war a nuyu muy Tidiane Sy ak maam Serigne Fall donc les boy maa leen nuyu bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. loolu wane ko li gën a fës si boobu xibaar yi jaajëfal équipe bi Leewtoo TV yëpp ak suñu internet yi. Yacine Fall bégg naa la Ousmane Mansour yow moom suba fii ngay toog man maa ngi fi muy allah ci Leewtoo TV.